وجاد كل بعمد mbokk mi boo bëggee bâche ak décor salon ak xasida yu bind ak loxo ak yu ñuy mool ak bu mu ci doon rek boo wootee Sëñ Fallu Gueye dina la ko defal ci jàppandal ku yaa wali yaa xadiir yaa nasiir للمؤمنين إنك العاد البير sëñ Fallou Gueye xarañ na lool ci wàllu mbindum xasida muy ci bâche wala lu mu ci mën di doon ليس يكون آمنا يا جسما ngeen daayira yi ak fu ngeen di mën nekk rek jokkoo leen ak sëñ Fallou Gueye wax ko seen commande ni ngeen ko bëggee mu defal ko noonu ci moolum xaste ci format bu ngeen ko bëggee ak taay bu mu ci mënti doon rek jàppane na ci sëñ Fallou Gueye jërë ngeen jëf أذهبت فورا لسيانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن حمدي وسري لمن aousubillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala di julli sayyidina muhammad rasulullah sangub sang ñoo ngi siyaare Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacke di ko ñaanam yàgg la daanaka wér noonu lay ki nga xam mooy Serigne Cheikh mboolem kilifa diine ak mboolem kilifa aada yi tey seen émission ziare fekk si leen fii si jumaay Massalikul Jinaan di jumaa ji nga xam daanaka Serigne Sidi Moutar maam ji tëdd ga tey dogal ba rek euh, Massalik ñu fekk si ñi nga xam ne ñoo di waa kuréel Tuxfatu Mutadarririn dugal si jëf la ñuy dox jëf nag boo ko déggee moo di xidma wante laataa loolu nag dañuy bàyyi ngeen daal teewlu rajes bi ak Serigne Ousmane bu si noppee incha allah jublu si waxtaan bi jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman haadihi tuhfatul mutadarrin fi tawassul bi asmaa'il mufaddalin alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bi lana alhuda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawi nawalil wali hada wa inni al yawma zu tawassuli لو بأسماء ذوي التفضل فقلت يا خريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بنزم هذا يا كريم وهب لمن بي يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لاغفر ذنوبي وفن الرجيم وكن بموسى وبجايسى واخيني دنيا أخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير الصلوات الله ثم عليهم لأب إيمانا قد ساقب الإسلام والإحسانا bi xurmati sidiqi wal faaruqi jutli bil ikhlaasi wa tawfiiqi bi aqi usmaan aqi nuurayni wa bi aliyi lwalidi sibtayni habli fi dunyaaya ma uxraaya annuura wal ulu wal masaaya bi aqi talxata wa bi zubayri وقساد نجني من ديري وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة اجلب ما يفيد إلى جنابي واكف عني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كسر المي بحق عبد الله نجل أمرا هنك في دهبا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاه بن سلام خن البلاء ودر عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وعمزة الأنف كل باسي bi xurmati alxasani walxusayni judli fi daarayni bin nuurayni bi xurmati alqaasimi summa taahiri safi zawahiri ama damairi bi xurmati taybi ibrahima xadim alayya albisra wa takrima بجاي فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لأفسي وبالرقية وزينب اكفني أترد والحجاب كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجن بن نخم بأوس بن عامر وارمي واقي مسروق تقبل كلمي وبربي وبجاه الأسود هب لي استقامة وقوم وودي بآمر بن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني جلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري أبدي الورى والانسلاق من هواي والبدع وبأبي هريرة وببلال وبسعيب الرب جلي بنوال وتعتي بل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدرداء وتعتي بل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدرداء بخرمة المقدار ثم خالدي وبالزبير أولني مخاسدي وبأمير المؤمنين همرا هني مكرا وسقا وخررا بحق عائد المجاهدين هل الذي آن بنا بحق سعد وبحق هروى زدني تمسكا بوسخى خروى بحرمة الخاسم ثم خارج زدني عفو المجتبى المناخجا وبأبي بكر وحب الله زدني فضلا ما لو تناهي وبسليمان هني كيد العين وكيد حيره وكن لي يا معين بأمنا حديجة حبل الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل بأمنا عائشة عني يما يدرني في الأرضين والسماء bi umminaa xasfataxul bayni abad wa baynama yajurru suu'an wa nakat bi umminaa zeynaba zeyin ma saar minni wa ma batana wajhalni wazar bi malikin wa saafi wa abi xanifatin wa ahmadin listajibi bi jaahi jibril astajib su'aali wa balli hanni mablaha rijaali bi jaahi mikaila hablibni hama wa nafi yaj'al misla aysin karama bi jaahi israfila habli hisma wal takfini ahwala yawmil humma bi jaahi azraila kulli جميل طول حياتي وكذا بعد الرعيل واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي به وليجد وللذي دعاني لنزمه بالأمن والرضوان وبالسعادة وبالعماية عن جملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سوال وعذاب وسكرات الموت ربي والعساب وبالبشارات وبالسرور xinda mamaatina wa fi nusuuri wa salliyan wa salliman ala nabii wa aalihi maa siaabi nujubi waxfir li waalidayya waxfir li jamii ahli wa jumlati siaabi yaa samii waxfir li kulli zi taalluqin biya وحقق عن سعادتي يا ربيا والتف بنا وحولنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا والتف بنا وحولنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا والتف بنا وحولنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi ginnaaw ba ngeen teeloo reyes bu am solo boobee nga xamante ne moo di xasida Tuffatu bi nga xamante ne Serigne Ousmane Soumane Noorén mi ngi ko doon yëkkati léegi ak Chérif Assane Bey mu doon xasida moom dañ ko séddoo daanaka di reyes bu am solo ñoo ngi leen fàttali ba tey yéen a ngi ànd ak ñun di teewlu seen émission Ziar Daara yi tey ñu fi defee ko fii si bërëb Masaalikul Jinaan di jumaa ji nga xamante ne Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacké moo koy naanal maamam ñu fekk si bi waa daara euh, tux fatu mutadarrifin te daara ji moom comme ni la ko waxee sànq ñoom si wàllu xitma la ñu jublu wante xitma googu incha allah dinañ si yaatal wan laata dañuy bàyyi ñaari jëwriñ ku mel ne euh, sëriñ Abdoulaye Guèye mi nga xam moom mooy jëwriñu daara ji ak tamit euh, Baye Modou John mi nga xam daan moom mooy porte parole daara ñu daal di nuyu ak téléspectateurs leen teew la. salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi ñëpp ku si nekk surtout ak sant ku si nekk foo mënti nekk di di teewlu émission bi ñu ngi si siyaar di la jox sa wàccuwaay ñu ngi siyaar ñëpp daal di ko tàmbalee si Cheikh Sidi di ko ñaanal mu yàgg mu yàgg fi wér di wér noonu lañ koy di suñu wasila Serigne di la ñu jox Baye Modou mi di nuyoo ak yàgg te wér maam Cheikh Fall Serigne Cheikh Fall Jëmm yàlla na fi yàgg te wér mbokk téléspectateur Bichri TV yëpp ñu ngi leen siyaar bu baax jox seen wàccuwaay di leen bal àq ndax jëmm sëriñ di leen bal àq ndax jëmm sëriñ Tuubaa gi rek leen xamal ne yéen a ngi fii tey ci masar ko jëna ko di ko jën waxee ci ndajem xëltu di yaatal liggéey bi di sakkuwaat bu baax a baax teewlu gi ci waxtaan bi jaa ngeen jëf ah, jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi noo ngi leen ba tey rek émission bi ki ñu si gunge mooy sëñ alaaji euh, sëñ Fallou Gueye mi nga xamante daanaka bind kat xasida di mool kat di defar ay table tey tiir su bëgg si xeet yooyu rek nanga nga jokkoo si numéro yi nekk suuf di ko fàttali sama mbokk yi nekk diaspora ndax ñoom jamono yi bari waa na ñi si yëngu si wàllum bésu xasida xeet yooyu képp ku yittoo wàllu banderole rek na nga jokkoo ak sëñ Fallou Guèye mi nga xamante ne moom bindkat xasida di si def yu am solo euh, sëñ Abdoulaye Guèye euh, ëxlu euh, tofat di ëxlu bam daan ak yéen da ngeen woote liggéey xidma ndax xidma googu mën ngeen ko yaatale waaw ah, bismillah waaw bàyyi la boo nee si xidma moom daanaka dañoo xam ne yoonu murit moom daanaka xidma xidma la ndax euh, comme comme xidma boobu nga ko waxee te ñëpp dañoo gis ni maam Serigne Fall jëf rek moo ko tax a raw jëf moo ko tax a raw bañ gisee raw noonu gis ni jamono gi euh, daayira yi bëri na tamit xew-xew yeeg yooyu yëpp bëri na waaye ñun ñu ñu dëgmal te xam ne tamit suñu borom daa soxla ndaw moo tax ñu suñu kàttan suñu xel ak suñu alal ndax liggéey suñu Tuubaa xel la doore ak alal ñu jël lépp nag daal di koy jëbal Serigne Tuubaa jël way si maam Serigne Fall ndax maam Serigne Fall jëf jëf nga rawee góor ñi bañ déggee ne jëf nga rawee góor ñi nag si lañ jaayante nag raxasaayu xool fan la ak nan la ak naka la daal di koy daal di si dëgmal daal di si raxasaayu nag taxaw si ngir way maam Cheikh Ibrahima Fall am ngërëmal Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall waaw loolu moo waral nag ñu jublu si xidma gi taxawal ëxatu fatu mu daal di ndax boo seetloo daayira bu ñu wax man la bu farisé ni nekk LTAB rejeté ni Cheikh Ahmadou Bamba bu njaareem foofu la sosoo woon ndax 2012 boobu noonu ku si mel ni Serif Assane Bey mi doon rajo sànq ak soxna maam Boussa Thiam mais nekk ci ginnaaw ñoo nekk ndowoon foofu nekk si daayira ji nag bokk nañ ñi nga xamante ni ñoo yow liggéey boobu noonu ba ñuy dox nag di dox ma gis ni Facebook bi yaatu na te tamit euh, ku nekk da ngay gis ku nekk mu ngi doxee nu ko neex ma ne ñun muy fépp fu mu ne war na faa liggéey Serigne Touba moo waraloon ñu taxawaloon fa benn groupe nag doon fa joxe ay rim comme Magal Touba bu ñëwee képp kuy membre bokk si groupe koy jaayante yaa xam noo koy ne ñu koy defee noonu nag te tamit njaareem boo ñëwee kër gu mag avant nga egg kër Sëñ taxaw di joxe ay bernde si màggal gi waaw nag ñun ñooy taxaw foofu noonu ngir tamit liggéeyal ko Sëriñ Touba comme xidma bi rek daanaka bañ a génn xidma ñun xidma daal noonu noonu lañ koy defee ba ñu ba ñu ba nag ba àndandoo liggéey boobu noon ba koy def ba koy def ba dem euh, nag ñu ne yu jéeg Serigne Touba nag dafa laaj nga am si ndigal waaw dafa laaj nga am si ndigal xanaa ma toogee si xidma gi foofu daal noonu daal xidma demee waaw kon bañ egsi si foofu noonu incha allah jërëjëf sëñ Abdoulaye si yaatal xam andal ma moom daanaka baat bu yaatu la si yoonu murid te bëri waa na jamono ji euh, ndaje yu bëri daanaka thème yi xidma la te xidma mun ñu ko jeexal wante yéen seen xidma su mboom dogal ngeen tibbeeku si maam Serafal moo di wàllu jëf saa ngi tamit euh, si biir tontu ba tey ànd nga ma li nga xam ne moo di 2012 ngeen ko sos si Facebook waaye sabab bi dëggantaan maam fan la bawoo ak tamit ban kilifa ngeen aju ndax jamono ji bari waa ne képp ku am kuréel wala daay rek foo nga am ndigalu benn kilifa bu mooy seetu liggéey bi yéen kam mooy kilifa. waaw comme ni nga waxee Baye Laal moom ba ñu ba ñu dëgmalee loolu noonu di liggéey ndax tàmbale woon nañu liggéey boobu joxe bernde yi ak lu si mel weeru koor beeg yooyu waaye dañoo dem ba xam ni liggéeyal Sëñ Tuubaa njël nga am si nga xamante ni moom nga si bëgg te mooy ngërëm loolu faaw nga am si ndigal waaw moo tax ba ñu dëgmaloo nag raxasaay dem bañ demee kuñ naan sëñ alaaji faalu sëñ faalu bu sëñ basiiru di rakki sëñ muntaxaa ndax dañ ne woon dañuy dem si seex sidi al muxtaar wala sëñ seex jëm waaye dem fa ne leen kat sëñ muntaxaa sëñ a gis ndax buñ gisee yaakaar na ko lool te tamit ak taari bi ñor na ko te ñun ak taari bi képp lañuy xencu ak taari bi képp nekk njaareem ñoo xam suñuy magum reñ ñu xalaat ne ñoom de demoon nañ si sëñ muntaxaa mu ne leen bu ñu fi romb sëñ alaaji ñëw si moom ndax euh, sëñ Fallou moom di waxam daanaka moo ko fa nekkal si la ñu xëy daal di dem bañ demee sëñ Alaaji Fallou ba àgg fa Sërif Assane daal di yëkkati rajas bi noonu ñu jàng mu génn ñu daal di ko koy wax comme ni ma la ko waxee ne la ci Facebook la tàmbalee yooyu noonu mu ne wax ko liggéey beeg yëpp mu ne ah loolu de rafet na am ngeen ci ndigal tuddee naa leen ëxatu fataw mu ta daara hin kon sëñ alaaji Fall moomu noonu la jóge waaw nag te tamit ñooñu noonu ñu àndoon dem euh, at bu ci topp si lañ fal ñaar ñu lycée technicien Amadou Bamba jëwriñ ko jiite woon te tamit taxul liggéey ëxu bi day dox liggéey daara jooju dox waaw euh, ñu jubluwaat si euh, Baye mi nga xamante ne Baye Modou Dione mi nga xam daanaka moom mooy porte-parole daay Baye Modou sa waay jot na ma andi li nga xam moo di maanaam kii kilifa ak daara muy sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Bassirou du ko ñaanal mu yàgg fi daan yóbbu te di ko siyaare di siyaare si Mountakha wante moom daf maa limal li nga xamante ne moo di maanaam ñaari ñaari selu la ma jot a limal lu mel ni Ndiarème ak Dakar bu weesoo ñaari région yi est-ce que am na yeneen selu au niveau du Sénégal. jërëjëf jëwriñ ci laaj boobu daanaka ni ko suñu jëwriñ waxee rek boo xoolee selul bi mu ne Ndiarème la soqeekoo waaye dem na ba dugg si dakaar gi ndax tey jii moo waral ndaje gi ngir yaatal bi taxawal nañ ko université bi nga xamante ne mooy Cheikh Anta Diop ñoom ñu fa dajee chaque 15 jours yu ne ci daara ji foofu ca mardi bu nekk def talaata weer bu dee bu ne samedi bu njëkk bi bu ci def fii ci jumaa ji Masaalikul Jinaan gi taxawal xamante ni ndax boo xoolee ëxlu gi dafa nekk yaatu dafa di international la ndax ñi nga gis ñu toog ñi ci bëri ñi ngi dëkk Thiès ñi dëkk Mbour ngi dëkk Diourbel ñi nekk Dakar am na ñu nekk États-Unis am na ñu nekk France am na ñu nekk fu ne dafa yaatu yaatu goo xamante ni xëy na mun nañu tàmbali gi moo demeegum nii rek waaye yéene gi dëgg-dëgg mooy dafa war bëgg nañ pépp foo xamante ni Mauritanie eh, fu ne daal pour xamal ko jigaatal mooy képp koo xamante ni daal membre la ci ëxlu gi am ne fu ñu ngi diglu waxtaan bi ñu ngi États-Unis am na ñu nekk Italie am na ñu nekk Brésil am ñu nekk Argentine nga xamante ne dafa yaatoo yaatu gu rëy rëy te loolee yëpp euh, jéem a yaata liggéey Serigne Touba gi la ndax liggéey Serigne moom moo ngi dimbale ci dooleem ngir ñu jéem a yaata liggéey googee ndax tawfeex rek la te loolee weesu lu dul ko suñu jëwriñ boobu liggéey Madial nga xamante ne mooy yaata liggéey Serigne Touba gi te loolee mooy li nga xamante ne maam woon muy jëf ji wante génn liggéey bi nag exposé ba mu teg ku ne bi nga xeli war dem ci Serigne ne jàmbaar Serigne Touba gi la woon te loolee suñu borom digal ko liggéey ci mat gi suñu maam war dikki di yaatal waaye teewul loolu ñu ci gën a góorgóorlu ba képp koo xamante ni yëg nga liggéey bu ñu téye woo incha allahu rabbi di ko yaatal baax waaye yéen gi daal mooy te tàmbali gi nañ ko ak Dakaaru gi dëkk yi que incha allahu rabbi bëgg nañ mu génn ba wër fépp koo xamante ne murit di nga fa liggéey bi dina fa baax a baax incha allah jaajëf euh, jërëjëf Baye Modou si yaatal ga ba tey rek duñ la bàyyi ndax euh, xam nañu kuréel bi daanaka kuréel euh, xidma la wante buggoon naa nga ma li nga xam daanaka moo di ute bi am si diggante kuréelu durus ak kuréel boo xam kuréelu xasida la mooy ute gi ndax xam nañu durus durus la ak njàngum xasida njàngum xasida bëggoon naa nga dimbalee ma si ute gi différence bi jërëjëf jigéen ci laaj boobu laaj nga laaj ba mu solo ndax li nga wax noonu muy wàllum kuréel gi ak rajas gi boo xoolee kuréel ña koy def saa su ne dañuy faral di daje di def lu ñuy wax bamtu ndax Sëriñ Moustapha Saliou dafay di wax ne dégg naa ci benn jër mu ne répétition baatum murit nañuy wax bamtu kon daje di bamtu saa su ne dafay laaj mbooloo mi daje di nekk waaye fekkee ne ñenn ñaa ngi Dakar ñenn ñaa ngi Thiès États-Unis ak feneen ak fa di def bamtu googu day metti ngir mën ko yëkkati muy jóg suñu borom dogal nag saa su ne ginnaaw fa di wax mbokku taalibe tey bëgg nañ 313 weex muy alxames gi Euh, talaata gi it muy mat yi dañ koy def muy 313 tuxootu di ko ñuy waxtu yi dañuy mën a toog di yëkkati du xas day moo waral yàlla ñuy def maanaam wàllum durus gi di nga xamante waaye toog fu ne rek mën nga fa yëkkati li xas day di ko durus goo xamante boo noppee rek envoyé ko message yéen mbokku taal bi xamal leen na ñoo xamante ñoom lañ bàyyi ci fànn googu ñu ko liggéey mooy dajale lim bi su guddi gi xaajee mbaa ci fajar gi ñu yëgal mbokku taal bi leen démb kat ajuma gi wala démb kat ci gi ci guddi gi yëkkati nañ nangam ci ay lim durus ko ba mat def ko addee Serigne Touba Maam Cheikh Fall jërëjëf jaajëf Baye Modou si ñu jubluwaat si Serigne Abdoulaye Gueye Mengam ba tey di leen fàttali moom moo jëriñu ëxlu bi Euh, Baye euh, Ablaye euh, suñu boom dogal sànq jot nga ma andi li nga xamante ne moo di activité yi maam da nga maa da nga kaa tënk rek waan bëggoon naa nga yaatal ko ndax ba tey lépp si xidma gi la waan bëgg naa nga yaatal ndax sànq jot nga jot naa dégg nga li nga xam moo di wàllu màggal Touba ak weeru koor est que mën nga ma ko gën a ba mu leer. daanaka ba ñu yaatal si dinañ si am mbégte ba ndax boo gisee suñuy activité dañoo demoon ba daanaka lépp nga xamante ni liggéey Sëñ Tuubaa la saa bu taxawee dañ siy dugg muy cantak gu mu mënti doon màggal gu mënti xew si yoonu murit nañ ci jaayante def ay rimu xasida nañ ci jaayante def ay xeetu jiw ak xeetu yooyu noonu di ko yóbbu ñooñu xew noonu tax tamit ku xew rek si màggal googu noonu comme doonee màggal Sëñ Abdou Lahad nañ def ay rimu xasida yi nga xamante dañ koy adiya Sëñ Abdou Lahad suñu activité nag mooy màggal Touba ndax màggal Touba li tax ñu dëgmal ko mooy di si def lu ñu mën lu ñu mënul ndax am Serigne Fall moo ko waxoon te ñun amuñu benn benn kay bu dul maam Serigne Fall ndax ak taalibe képp képp moo ñëw te loolu lañ bokk ak maam Serigne ndax moom moo wane luy ak taalibe moo tax ñu dëgmal topp si ginnaawam ngir xool naka la daan doxee nan la ak naka la ñuy jéem jéem ndax jéem kat mooy tax a ñu jëm di si nekk boo boo boo gisee ndax moom dafa waxoon ne màggal lu dul màggal ak jumaa ji su ñëwatee na ngeen dem ak seen xel mu ne waaye màggal Touba ak jumaa ji bu ñëwatee na ngeen si def lu ngeen mën ak lu ngeen mënut loolu moo waral nag ñu dëg gis ni yoon bi day xat njaareem da ngay gis embouteillage nit ñi dañuy sonn nekk oto yi seen kanam yi bay bëgg a dee ñiy fanaanoo daw si tali bi ñu ne ñun nañu nañu nañu jaayante bañ a teel dem màggal yi ndax ñun ñu dëkk njaareem ñu jaayante toog si siège def ay xiwar yu yaatu ay kafe yu gën a neex daal ndax ñun Sëñ Tuubaa lépp lu gën a neex rek yaakaar nañ Sëñ Tuubaa la yeegal si taalibe mi ñu defar ay café ay jus ay sandwich ak xéewal yooyu daal yu yaatoo yaatu daal di ñëw si kaw tari ba foofu noonu di ko jox ñi màggal euh, ndax am na ku ñu naan ëxu café gi ndax ñoom ñoo nekkoon ñoom tamit dañoo nekkoon woon foofu noonu di liggéey nga gis ni dem nañ ba léegi bëgg ko muy doon benn ak tari bi ñu ngi a réunion waaw war a àndandoo ñoom liggéey boobu noonu ngir def ko waajal ko nga xamante ku ñëwati njaareem rek boo agsee njaareem rek màggal day mel ni daal da ngay daal bu reggee euh, Touba ku la jox ndékki nga ne baax na waaw ñun daal noonu lañ a am na yaaboo yi nekkoon si oto yi ñu leen doon jox ma gis ni ñaan yi ñu ñaanal ba da jooy sax nga xam ne ñii mbégte mu ñu àndal daanaka yaatu na waaw moo tax ñu ne nag weeru koor maam Serigne Fall da si daan yëngu kon nañ ci yëngu waaw moo waral nag ñu jubu si weeru koor nga xamante guddaaj moo wujjotee alxames dañuy daje siège ba tàkkusaan daal di fàggu ay xéewal meew café jus ak yooyu ndox ak yooyu yëpp waaw bu ñuy fàggoo ndox yeeg yooyu dañuy jubal kër Sëñ Amdi Xaadim ndax boo seetloo waa kër Sëñ maam waa kër maam Seraay Faal yëpp dañuy defar ay ndogu waa ñëpp dañuy defar ay ndogu waaye boo gisee njaareem foofu àjjuma ba àjjuma rayam ndax yeneen kër maam Seraay Faal ñoom bis bu jot dañ koy def bis bu jot dañ koy yóbbu ko Seex Sidi waaye njaareem àjjuma ba àjjuma day yaatu gars yi fu ne ñu jóge ñu gis ni foofu dafa xat na metti na tàng na ñu ne waa ñun dañuy jaayante di fa yóbbu ndax guddi gi bu ñu rey nag yi dañuy sonn dañuy tàmbale rey nag yi min wi ba fajar di rey ay nag di a dee si dox si ko gaay ñoon ñu way fa kenn àndandoo nga gis ñun ñu ne kon nañ leen fexe di leen xamante ni dañ koo commandé mu jógee Touba ñu daal di koy dajale foofu daal di xëy segal ko yendu foofu soxna yeeg góor yàlla yëpp ñëw ñu àndandoo defar ko ba mu mucc ayib ñu xaaj ko xaaj daara ji am ñu jiitu foofu am ñu taxaw foofu noonu ñu des foofu si siège ba ñooy dugg si dëkk bi commandé ay glace waaw daanaka ay 500 mbuus jëm kaw commandé ko indi ko siège si ay moto ay moto ak ay taxi ñu koy fekk ni ñoo féetee foofu noonu ñoom ñu jël ko di ko def ay siwo ay paan soxna yi ku nekk yanu ñu dugg si mbana di may gaay ndox waaw noonu daal lañ koy defee te mooy weeru koor weeru koor bi nag tax ñu ngir roy maam Serigne Fall tamit moo tax ñu def weeru koor beneen bi tamit mooy tabaski bi nga xamante ni ñu ngi ko dëgmal tabaski nag dañoo pare weeru koor ma ne woon kat naa vacance nag ñun ñëpp ay élèves waaye ah, waxtaan jàpp ñu ne ñun kat war ñëw nopparu ndax maam Serigne Fall nee na nopparu noppeeku gën waaw te tamit murid bi liggéey boo duggee sa bàmmeel nopparu ñu ne kon nag buñ nopparu nañ jublu si tabaski bi ndax maam Serigne Fall dégg nañ da daan yóbbu tabaski da daan yóbbu xaru tabaski Serigne Touba kon ñu ne kon nañ leen jël ñun tamit ñu jaayante ay xaru tabaski daal di koy yóbbu Serigne bañ koy yóbbu dañ koy yóbbu sëñ Tuubaa incha allah ñu ngi si dox bi nii di ko waajal di ko yóbbu sëñ Tuubaa jaaree noonu la dañ fay faral di di dem chaque euh, Porokhane bu jot dañuy yóbbu ay shampoing ak saabu ak euh, ay yére yooyu daal dem si sëñ euh, soxna Daba mu sëñ Fallou soxna Daba mu sëñ Fallou nga xamante ni sëñ Fallou mii ñu jox tur sëñ Alaaji Fallou jox tur mooy borom këram waaw ñu dem ko koy jébal mu daal ñu koy yóbbu si daara maam Serigne Fallou tamit am na liggéey ba nga xam ñu ko fa def bàyyi njóogu maa ngi koy siyaar maa ngi koy xam moo nekk si bërëb ba ndax euh, am na mbégte lool si si daara ndax euh, weer bu jot dañ daan jaayante ay xasida ak ay parfum di ko fa yóbbu waaye bañ demee am bis ñu jaayante xasida ak parfum yi ñu fàggu ab sikki sikki bañ ko fàggoo booree ko gis ni sikki bi dañ koo jël seppi ko yóbbu ko sotti ko desul parfum yi ñu denc ko ne boobu nag lañ ne kon di bis ni ki tey ni ñuy jaayante sikki di indi sikki bi tey bu toog ni mu ngi jar cinquante mille boobu ba tey nag bañ ko gisee ba tey chaque weer bi dee dañuy jaayante sikki di ko fa yóbbu waaw loolu daal mooy suñu liggéey te loolu chaque weer bi dee ngay def yi si des mooy màggal poroxaan weeru koor ak tabaski waaw mooy suñu activité at bi ñu ngi tubaat ba tey jégal euh, jërëjëf sëñ Ablaye si yaatal waan dañuy des ba tey si wàllu activité yi ndax xam nañ social dafa large te daanaka euh, lii di euh, tabaski yi ak maam parfum yi ngeen yóbbu si barab Cheikh bi xam nañ loolu suñu seen poos lay jóge wante maam li ngeen di euh, barkeloo di ko dimbalee murit yi dem si euh, Touba mm. ma maanaam xéwal ngeen defal jaam ni loolu ndax seen poos kese lay jóge wala fa am ñi ngeen si àndal si wàllu ndimbal ndax xam nañ loolu du budget bu ndaw moo koy def mm. weeru koor bi tamit est tamit am nga ñi leen si accompagne ndax li limal li yëpp budget la wante yenn ñi xam na ñun murit ñoo ko tàmbale mm. wante yeneen ñi du ñàkk ngeen soxla accompagner est ce am nga ne leen jàppale si loolu waaw <laughs> waaye waaye su de xanaa ndeysaan nii ngeen ko waxee ay suñu benn mag ba nga xam ne mu ngi ëxu minam noonu lañ ko waxee naan ñun fi ngeen di jógee xéwal geeg yooyu waaye ñun saa bu ñëwee ñun dañoo man dama gis ni sëñ Tuubaa si menoonu baax xarim dafa wax ni képp ka nga xamante suñu borom ñii nga xamante ne dañ maa yéene liggéeyal da nga jox wërsëg gu toog ak ñu yéene boobu nag ba ma ko ba ma ko déggee ba tey barki maam Serigne Fall du ma si dañ saa su ma toogee élève lañ de kenn si waaye dañuy yéene Sëriñ Tuubaa ni Sëriñ Tuubaa deux euh, cent mille bëgg nañ la ko jox euh, weer bi man mii bëgg naa ko si man keneen def ko noonu ñu am pas-pas ak Pastef dox si mu ci doxee dañuy ñëw jox ñu ko waa suñu mag keneen ñëw jox ñu ko keneen maa jox ñu dëg ma réew yi dañuy jox sas ku ci ne dañ lay sas comme tabaski bi nii ku nekk sas nañ ku si nekk dañ laa sasoon cinq ñu xam ni cinq mille cinq mille yooyu du jàppandi ndax dañ ñëwoon bis bu ne dañ siy def 85000 waaye bis bu ne def nañ si 125000 jëm kaw nga xam ne kon liggéey Sëñ Tuubaa ak tàmbali képp la saa boo tàmbali mu tamit ñun tamit suñu objectif ñun tamit suñu suñu suñu suñu signaté mooy ñun ku dox ñu dox ku doxul ñu dox am na woote waaye amul xaare barki maam Cheikh Ibrahima Fall doon si kenn ak doon si fukk rek ñamare nga nañ kenn du si leen lépp Serigne Touba maam Serigne Fall la te ñun gëm nañ maam Serigne Fall doyloo ko bu baax a baax a baax te xam ni lépp lu am te ñun ñu xam ni kat bu ñu jéemee mu fekk si ñu loolu dong moo waral saa su ne dañuy nii am na a dof ah seen moroom yi dem nañ vacances yi tar waajal ñun ñu ngi tabas ñu ngi nii tabaski bi te dañ ñu ngi ciy de waaye barki maam Serigne Fall dañ si am kawe suñu jot te tamit dañ koy yéene ndax xam nañu du ñun ñooy def du ñun ñooy def du ñun ñooy wax xam nañu maam Serigne Fall képp la moo tax ñu ne kon ku dox ñu dox ku doxul ñu dox am na woote waaye amul xaare donc kenn ak fukk nag lañ yemale barki maam Serigne Fall maam Serigne Fall xam na ni moom moo koy def moo tax ñun moom lañ koy laaj te tamit tax ci ak tudd yàlla ndax gars yi Sam Fall ak waaw xasida rek la ñuy yëngu sax si tudd yàlla ak sanfaar te tamit di xaar ndigal saa jugee rek ñu jéem jëfe te tamit saa jugee bañ demee bëgg maam lépp nga na ñu ko defal mu faju ndax bëgg ñu ko duddi réewi te nga saxañ ak njub ñun daal noonu képp rek foofu rek ne ku jëf ñu jëf ku dox ñu dox ku dox ñu dox maam Serigne Fall am na woote nag waaye amul xaar ñu daal foofu rek ne waaw jërëjëf Baye Abdoulaye Gueye si yaatal gu am solo ga mbokk taalibe mel ni dégg ngeen kàddu ndax xam nga ne moom moo ñu dimbalee ba ñu murit ñu jër ñu si ni ñuy liggéeyale Sëriñ Tuubaa si xeetu jëf euh, jëf gi nag ëmb na teggin ak melo ak doxin ak waxin di leen fàttali ba tey yéen ak ànd nañu di teewlu seen émission Ziyaar Daara yi tey ñu ko dawal fii si jumaa Masaalikul Jinaan fekk si waa euh, kuréel durus Tuhfatu Mutadarrisin di kuréel ba am daanaka ñoom seen liggéeyam si xidma la ndax daanaka boo déggee ñoom liñ fi andi léegi ne maanaam génnul bennoon xidma euh, dañuy joxaat ki nga xam mooy bay Modou jon mi nga xam ba tey moom porte parole kuréel Baye Modou sa waay andi na ma lu large seen activité lu am solo wan bu weesoo la xam nañu murit dañuy doxalante dañuy demlante te yéen euh, yan lien ngeen am ak euh, daayira durus yi ak tamit daayira kuréel yi maam de manière générale yan lien ngeen sëkk ak daayira yi nga ñu ngi si zone yi ngeen nekk ak zone yi ngeen nekkul. loolu de lu ñu def ak digganteeg suñu daayira yi mooy lu ñu defanteeg suñu digganteeg sang rek ndax ëxlu tufat gi ñu ko xool nii boo seetloo ñu ci bëri jokku si nga laaj Mbàkke moomu. waaye li maam Seer Fall waxoon ne ab murit dafa war a mel ni ab naaru góor rek xamul ki ka abba ki ka moom wante ku ko yëlloo ko ne ka yettuwoo ko boo ca waree na nga ca war a waree rek jëfandikoo ba noppi dina war ko ñu noonu lañ joxee kon suñu diggante ak daayira mooy suñu diggante ak sang yi rek ndax boo xoolee njaareem googu ñuy bàyyeekoo événement bu fa am bu ne ci fàllum yëngu gu ne dinañ ca teew nañ ca war a teewee teew ca ci sikar teew ca ci rajas te ca ci kuréel bu ko mbooloo mi laajee wante dinañ féetewoo ñenn ñi ci waañ wa nekk ci wàllum togg yi ñenn ñi nekk ca wàllum kafe ga ñenn ñi nekk ci loo xamante ne organisation bi yittewoo na ko laaj na ko ñu gën caa góorgóorlu te loolee noonu ko defee ci màggal yi nga xamante ne am na ci it muy cant sang ya fay am foofu ca njaarim ak màggali Tuubaa yi comme que jëwriñ waxee sànq ndax màggal Abdou Lahad Mbacke dañ ci solo màggal Sëñ Fallu dañ ci yëngu-yëngu am solo dem ko jox mbokkum taalibe yi dem kon képp koo ne nekk nga njaarim ab yitte ci daara ji boo ko xamante boo ñu ko xasee ba yëg rek tàbbi na suñu nopp rek bu waxtu wagatee ñun ñoo ci woo saas dola ci soññ ndax ñun dañoo nekk ci koo xamante ne lii Serigne Touba rek ka maam Serafal maam Serafal la ku na ne ka Serigne Bamba di ko daa di toog daal dina doom fekk fii ñu létt mbaa ñu firma ndax kat ku Serigne Bamba yónni ku ne dangaa war daw waaye ku si Anta woo ku ne dangaa war a adoom létlim mbaa ngeen firima bañ maam Anta Mbàkke dafa daw daal ne déet ne leen ko mu dem uy ji ndax kooku moo ñu boole moom ñun nag foofu la ñu doxee ñun tey ji képp koo lool ci wàllum jëf amoon na ki doole lool ci wàllum xam-xam ci wàllum zaar amoon na ki doole lool baatin dañ kaa jël ndax àgguñu fa ñun foofu la ñu doxee suñu diggante daayira mu doon loo xamante rafet la lool ndax ñu ngi ci ëxlu gi ñu bëri fañ dëkk ci seen gox am nañu ay daayira foofu ndax ci waa Dakar gi donc ñu ci bëri fañ nekk ci seen dëkk koñ am nañ fa ay daayira waaye bokkul ak ëxlu gi kon ñooñee kenn ku ci nekk boo ci amee yëngu-yëngu dañ cay teew insha Allah nañ ko bëggee ak nang kee kewee sa nga ko muy cant ci école ak ci kër sëriñ seeg ñëpp dañ cay teew bu a def ci suñu képp laa kattan te loolu Euh, yéen euh, gis nañ jamono bis xas day daanaka saa su nekk ñu koy amal maam dañuy yónnee ay lim di jox ay gi gaa yi jàpp si lim yi yéen ak seen suñu boom dogal nañ ngeen di tàbb si lim yooyu as tamit est-ce que tamit euh, mbooloo des fois ñu ngi moom si bis xas di di jàpp si durus bi. maanaam loolu nga wax dafa tàbbi ci liggéey bi ndax waxuma la bis xes day dong waaye màggal yi ci boppam dañ ciy tàbbi tàbbi gu yéeme ndax li muy wax nii màggalu ngàcc bu sëñ Massamba Fall gi dañ caa dem tàbbi ci tàbbi goo xamante ne boobu sax daayira école bi ñoo teewoon waaye ci tux lu gërëm rek bañ accès keroog soxna yi rek dus nañ fa 313 tuxfatu góor yàlla du fa 313 kuréel gi soog a yëkkati xasida yi ñu noppi soog a sikkar siyaare ji eh, sëñ Massamba borom gàcc te loolu lañ koy doxalee ci ci màggal sëriñ Abdou gi ga ci wàllum liggéey bi kenn ku ne xam na ne ndax génération premier safar gi nga mais gars yi di di wax mars waaye promenade laa ko tuddee ndax mu amul ko naqar bay mars ci premier safar gi tàbb nañ ci tàbbi goo xamante ni waxuma la ci lim gi waande wàllum jëf gi sax dañ ciy liggéey liggéey bu am solo ndax ci lépp lu jëm ci wàllum collation bokkum yi lañ ko jox te loolu ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax te loolu lañ koy laajee ci màggal yëpp incha allah di ci gën a te bëgg ko mu wéy fépp ndax dañoo bëgg bépp boo xamante ba Ahmad Bamba des États-Unis daxu tufatu mosa ndax liggéeykat Sëriñ Tuubaa lañ xam ne maam serafal moo ko war ne kat gis ko te xam ne maam serafal moo ne

télé bi wuyu na bu baax a baax tur wi te loolee kat mbégte murit yëpp la mbégte taalibe yëpp la kon ñu ngeen di ñaanal ci barke Bichri moobee nga xamante ne kenn ku ne xam na ne mbégte rek la doon kon mbégte googu yàlla na tàbbi ci yéen tàbbi ci mbokkum taalibe ba képp ku dégg télé beeg ak ña fa nekk yëpp suñu borom dafa leen a baax jaa ngi def asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala bakat jërëjëf leera gu solo gay ak ñaan yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, sëñ Ablaye euh, la mooy seen projet futur yéen Euhlou bi ndax xam nañu ay élève ngeen te boo seet ay élève fu ñu daje moom daana xel yi day màcc xam-xam yi day génn Euh, seen projet futur. waaw Baye Agass moom de noonu la demee suñuy suñuy projet futur bokk na si maanaam ndax euh, suñuy mission jëf kese la ndax ñun jëf lañ woote te jëf nag boo ko wootee faaw nga am fa nga xamante ni fa ngay fa ngay tibbee te nag fu ñuy tibbee nag weesuwul maam Serigne Fall ñun moom ñu maam Serigne Fall képp la ñuy tibbee te xam nañu moom du jeexal waaye tamit fi mu ne nii ñu ngi waajal ay projet ya nga xamante ni te mooy taxawal ay jumtukaay ya nga xamante ni mbokki taalibe yi ña nga xamante ni jàpp ñu si dara dinañ ci jàpp ndax ñu si bëri tamit ña nga ni si réussite technique bi lañ génnee ñu génnee tee ak ñu génnee ku si mel ni assemblée ñu ngi ndax comme que ay intérêt ku ne am na fa nga xam jaar nga fa ku si mel ni ñoom Omar Diop ak prof informatique bi nga xam ci ëxriba ñu ngi ci ay projet ay sants xool ba xam naka lañ koy génnee ndax bëgg nañ tabaski bi bu matee ndax euh, ki ñu jox tur sëñ Fallou bu sëñ Basir benn yoon boobu lañ gisee gum mooy ba mu ñuy jox dañuy gisee nag waaye comme titu axu benn yoon boobu lañ giseegum dañoo bëggoon dëpp bi nag mooy gisewaat bi nag mooy tabaski bi moo tax ñu bëgg a yóbbu xaru tabaski yi te boobaa noonu bëgg nañ xaru tabaski yi mat xaru tabaski bi matériel nañoo koy jublu si suñuy projet waaw moom yaa yaakaar naa yaatu na yaatu na xalaat yi ñu jot tënk daanaka yaatu na budget yi tamit na budget yi ñu jot ñu ne bismillah ñu tàmbali si rek ñu tàmbali ku nekk sasoo waaw yaakaaruñu maanaam ay politique ay yooyu yaakaaruñu si dara ñun lañ si def mooy addiya lañ xam dañuy génn booree ñu yor booree ñu maa jaal teeg ak Sëñ Tuubaa xaal Sëñ Tuubaa booree daal di si ju jublu ay liggéey gaa yi jàpp si ña nga xamante ne jàpp ñu dara jàpp si mu di jur ay koom boo ko defee xamante ni war nañ koo jëf duñ kenn ndax am na woote waaye amul xaar ndax social boo gisee tamit ñu siy doxee noonu noonu la demee ndax am na kuñ doon wax am na turam sax jaruñu si jaar ndax jëfa pare di na na ña ni tey si internet bi lañ xamuñu ren de dañoo gisoon seen kanam yeeg yooyu ñu war a def ay yooyu di raaj am jafe-jafe ñun dañoo jël seen numéro si saa si jël si kees ba waaw xéewal ga nga xamante ni jarul ñuy tudd bi ndax euh, moom ak naagoo ak ndabu da see xaj ñu jël xéewal googu yónnee leen ko te xamuñu ren bu leen ko yónnee nag boobu ren si noppi noppi nañ si reneen am na ni tamit magum ñu nekk njaareen a def opération bët amuñu am jafe-jafe buñ koy fayee kooku nañ taxaw nañ si si ñaari fan fexe koo dem fayal ko ko bañ ko ko fayee si pare jubli si reneen am na ña nga xamante ni tamit nekk nañ université bi am ay jafe-jafe war a inscrire yooyu ñu am ko ñu jubli si ñun daal di leen fayal seen inscription jubli si reneen ak université Bambey ak université Gaston Berger ak fépp fa nga xamante ni daal sëñ bi taalibe sëñ Tuubaa mu ngi fa képp ka nga xam ne da nga am ay jafe-jafe ba kaw rek nga xam dañuy am jafe-jafe ñu dox si social bi ñu dañuy taxaw si képp problème tey bu ñëwoon tey ñu wooñu téléphone wax ñun diw sàngam soxla na nangam balaa ñëw tëdd barki maam si tëj teral tiir jëntiwuñu ko dana mat bu matul guddi gi suba bu ñu xëyee dana mat ñu jox ko ko daal di koy jox nag dañ ko koy jox ñun sëñ Tuubaa lañ jox képp kuñ joxee sëñ Tuubaa lañ jox waaw sëñ Tuubaa lañ jox ndax naka mag ba defee woon rek ba sëñ Tuubaa nekkee sa géej euh, sa tukki ba mag mi jël ay xarima def ma toog ni junni toog junni xarima yóbbu ko si géej gi daal di ko fay sotti ne jox naa ko addi Sëñ Tuubaa ba Sëñ Tuubaa ñibbisee jëmmi jamono ne ko sa xar yu maye de gis naa ko boo fekk ne yittoo woon naa ko benn xar yu ma dong ma dese woon kon ñu xam ni lépp ñuy jëbal Sëñ Tuubaa bi nga xasee ba jox ko ko bañ dem si bërëb ba sànni ko fa xam nañ Sëñ Tuubaa jot na ko noppi nañ si daal di jublu si reneen waaw kon daal noonu la demee ñu ngi tubaab bu baax tey jégal suñu projet nag moom daanaka yaatu na yaatu na comme ni ma ko waxee yaatu na daal yaatu na waaw jërëjëf Baye Ablaye Gueye si li nga xam ne andi nga ñu ngi si wàllu projet yi ar mbokk taalibe faw nga faw ñu am loo xam faw ñu taxaw si daanaka ñu ngi si jeexantal émission wante am loo xam mënta ñàkk ñu laaj ko jëmm ji waaye laata loolu dañuy def benn développement bu ndaw ndax xam na ñun Serigne Touba daf ñoo dimbali ndax ku seet fukki at wala ñaar fukki at si ginnaaw sa lañ nekkoon ak tey ku gis suñu melo ba ku ñu gis naw ñu ngir jëmm Serigne Touba gi lépp Serigne Touba la wante Baye Modou ñu Serigne Touba ñun ndaw yi lan lañ ko mën a fayee ñun suñu bopp. di jërëjëf Baye Modou si kàddu ndénkaane ak kàddu soño am solo loole mbokk taalibe xam nga ne émission bi daanaka mat la. waaye ñu bàyyi bàyyi euh, euh, Ablaye Diakhaté rek mu daal di tàggoog mbokk taalibe yi koy teewlu bu si noppee incha ñu jox Baye Modou mu tàggoog mbokk taalibe yi. waaw Baye Mohamed kon de xanaa li ñuy tàggatoo mooy dañuy tuubal mbokk taalibe yëpp ku si nekk foo mënti ne rek kàddu gi rëpp nga xamante ni di ñaan tamit nekk sa njaareem nga xam dafa jël këram jël ay néegam jox ñu ko nañu néeg bi mu ngeen ko def seen néegi gan néeg bi ngeen jël ko def ko néegu xasida kon nag loolu noonu kooku amuñu fayam ak ñeneen na nga ñu ngi suñu ginnaaw

jërëjëf jëriñ tàggoo bi mooy di jaajëfal baax baax mbokkum taalibe yëpp rawatina waa wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu lool ndax boobu kenn ku nekk di ci yëngu bu baax a baax di ci góorgóor te lii seen ngi a baax wax saa di ñaan gi mooy ginnaaw yàlla du jeexal ko Sëriñ Fallu du doyal ko lu ñu bëgg Sëriñ Fallu nañu téyel kon yàlla Sëriñ Fallu sax yina jafal ba ñuy jeexal Sëriñ Fallu jën ñu dugal ci àgg mi baral am yàlla gën a jafe nag yàlla nga ko yàlla yombalal gën a yombit yàlla ko jafeel lépp luñ am am yàlla lépp luñ mënti ñàkkit yàlla nañ am yàlla yàlla nañ sëriñ Tuubaa dugal ci gaali xéewal gu ci géeju mujj yàlla na sëriñ boole saafara tawat yokku xam-xam am am ak mën-mën yàlla na Serigne am lu mu bëgg ci ñun kon lu jub ñu xam ne ci borom bi la lu dëng ñu xam ne ci man la nit moomatul kon yàlla nañ sax ci liggéeyal xaadim rasul ba ko bés ñu suul ci barke xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatulahi ëxlu tux fatu mu ta dara yéen fii jumaay Massalikul Jinaan mbokk taalibe ñoo ngi jàll baa Cheikh Diop bi nga xam daanaka moom moo nekkoon chef de chantier jumaay Massalikul Jinaan bi nga xam groupe Mafaatihul Bichri TV international mu ngi koy jaal njabootam man ma koy jàll doomam mi tawam di Baye Moussa Diop di taalibe sëñ Modou euh, sëñ euh, Fallou Fall moom sëñ Modou Amady Fall di sama xarit euh, di sant bu baax ñi nga xam ne maam ñoo jàpp si émission bi ku mel ni ki ñu doon gunge di Serigne Fallou Gueye mi nga xam ne di bindukatu xasida di moolkat xasida di defal ay tira ak ay bâche ak ay banderole di leen fàttali ak numéro bi incha allah ku ko yitteewu rek na nga xool suuf mbokk taalibe ñu ngi sant bu baa assistance bi di sant bu baax waa Olof ndax xam nga ñoom ñu si bëri dëkkuñu fi dakaar euh, surtout maa jëriñ hmm, Baye Ablaye mi njaaram la boobu ñeneen ñi tamit dañoo jóge si ay gox yu fasandikoo di sant bu baax samay xarit yoo daanaka ñu ngi tugal ku mel ne soxna naa mi nga xam daanaka jàng ko tuxfatu la nekk France. ak euh, soxna maam euh, Faly nekk Touba États-Unis xam naa lii bi nga ko teewloo dinañ dinañ si bég lool di sant bu baax ki nga xam daanaka sama wëlëy di sama xarit di sama lépp di sëñ Omar Diop mi nekk daara Safinul Aman di sant bu baax ki nga xam ne daanaka moom moo di sëñ Noreyni Souma di sama xarit moom tamit di sama jàngkat di leen jaajëfal di leen sant di am mbégte ak si émission bi ndax xam nga ni man mi téye micro bi di wax ak yéen man gëmuma te yaakaaruma ku dul maam Serafal mooy sama lépp kon boog su ma ñëwee fekk samay mbokki Baye Fall ñi nga xam daan ñoo bokk Cheikh Ibra ñu amal lii di amal waxtaan ba ci tudd Cheikh Ibra kon boog dama koy jàpp sama yëf bopp waaye nag émission bi dañ koy tëjee ak i sikar dañuy bàyyi Chérif Assane Bey mu yëkkati ay baatu laa ilaaha illallaah ñu tëjee ko sikar bi ñu ngi sant bu baax Serigne Ndiaga Seck mi fale si wàllu bi ak montage bi waxul loolu maqaamaati rijaal bila tasage firme ba simi dial jërë ngeen jëf la ilaha illallah إله إلا الله إله إلا الله فانجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب شريف فات أيدارا نار بيا مام كوزارا

sol ni laat may nu loo dootul nangoo di moom Seex Seex وجاد كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر mbokk mi boo bëggee bâche ak décor salon ak xasida yu bind ak loxo ak yu ñuy mool ak bu ci mënti doon rek boo wootee suñ fàllu gëy dina la defal ci jàppandal ku yaa wali yaa xadir yaa nasir للمؤمنين إنك العاد بصير sëñ Fallou Gueye xarañ na lool ci wàllu mbindum xasida muy ci bâche wala lu mu ci mën di doon ay sabdawawran di jaana kulla man laysa yakunu aminan yaa saman ngeen daayira yi ak fu ngeen di mën nekk rek jokkoo leen ak sëñ Fallou Gueye wax seen commande ni ngeen ko bëggee mu defal leen ko noonu ci mboolum xasida ci format bu ngeen ko bëggee ak taay bu mu ci mënti doon rek jàppane na ci sëñ Fallou Gueye jërë ngeen jëf أذهب فورا لجانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا زمن أذهبت فورا لجانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن